tey la àjjuma mooy dernier numéro de la semaine ñu bëggoon waxtaanee ci Ousmane Sonko mi nga xam ne sorti gi barki démb bi juróon na fi coow lu rëy rëy mais euh, sorti bi nag dafa wane ak euh, cuune su dee mën naa ko waxee noonu. wala ah, ñàkk waaye sooy bu yow tamit ko mu kii. non pour mu dégg li may wax day day day am retour quoi day léegi ma jigéen yaa ngi dégg normal yaa ngi dégg. voilà sorti Ousmane Sonko bi coow li mu fi jur nga xam ne am nañu ko tuddee euh, ak cuu nekk euh, opposition bi maanaam seen ñàkk mën a politique bi dee mën nañu ko tuddee noonu ndax ba mu génnee daal ni opposition bi wala bokk ñi nga xam ne mooy député yi euh, loi de ki nga mo censure bi ñu waroon a woote fële ca euh, assemblée nationale duñ ko taal buñ ca yeggee te nee na loolu du fi mas am te euh, buñ ca yeggee dinañ ko xam dafa mel ni ca ngoon nga xam nañu la xew euh, gannaaw si noonu it tamit premier président Diomaye dem na ci Chine daje na ak président ba dalal nañ ko fa am na fa ngan gu tabarkàlla signé nañ fa lu mat dix accords yoo xam ne am na ay kilifa yu mu àndaloon jóge fii ci réew mi moom président Diomaye def na discours gërëm njiitum réewum Chine te itamit rafetlu dalal gi ko dalal bu ci xajee Ousmane Sonko wax na ci biir quatre personnes yoo xam ne nee nañu mujj boobaak léegi te nee na allah fii ay fan sax est-ce que yi fi commencé sax muy enquête bi ñi nga xam ne jàpp nañ ñoo sàcc alalu réew mi ma mm-hmm. waaw sooy bu mm. euh, xanaa di rafetlu rek liggéey bi nga xamante ne nii gars yi ñu ngi koy liggéey jamono ji euh, te nag euh, lu ñuy wax rek naan kenn mënut ñëpp mënuñoo àndandoo ak yow. Mm-hmm. waaw forcément ñu nga xamante ne ni dañuy toog uniquement pour di saboter sa liggéey. Mm-hmm. da ngay dem ba dégg ñenn ñi sax di wax ni li fi ne woon moo fi jugewul parce que euh, dañu jàpp ni au début euh, président bi ak euh, Macky Sall bi muy doog pare. Mhm. ñuy wax ne sax dañ doon nekk di di di dem ba utiliser ay termes tàppanteeg yu ni mel. ma ne man ma gis ne loolu c'est normal parce que président bu fi jógee bu nekk rek il faut nga ñëw ngeen ñaar ngeen wax ngeen nga xamal ko li nga fi bàyyi lan la liggéey bi fu mu toll. fan la su ko defee àggale bi mën a nekk. nee nag loolu noonu moo mel ni luy commencer di jeex. te ñii ñoom gis nga ba ñu ñëwee ba tey Ousmane Sonko bañ na ko ba wax na ko nee na reddition des comptes. Mmh. sénégalais yi dañ koy yàkkamti tellement ba. munoo sax comprendre nee na suñu ñëwoon parax paraxee ko amaan na li liñ ci bëgg dëgg dëgg duñ ko ci am. Mhm. léegi nag li yoon tey dëgg mooy que ni mbir yi duñ ko xëy xëy rek bëgg koo teg ni ci kaw taabu il faut ñu enquête ko. Mhm. ba xam dëgg dëgg ñi jël alalu réew mi sax saaxee ko ak ñi nga xamante ne nii dañ leen a dénkoon ñu yor ko ci yorin boo xamante ne du yorin bu normal. Mhm. loolu liggéey bi mu laa ci ñoom def nañ ko te wax na ko xam naa ni du ñàkk semaine bi ñuy dugg incha allah. fi yàlla bàyyee ni nga ci dégg lu bees parce que wax na ni dina dinañu jàpp ci lu toll ci ay dizaine de personnes kon nga xam ni mm, li mu doon wax. d'accord naan dinañ xaw ma kan moo doon yëkkati kàddu yooyu naan dinañ dem ba toll foo xam ne bu ñu waxee mbiri rek. Mhm. Sénégalais bu nekk rek da ngay bëgg a gàddu ab weer te yow mi sax démb dégg naa nga koy wax. d'accord ngir jëf yu ñaaw yi nga xam ne def nañ ko fi par rapport ak euh, motion de censure bi. Mhm. fi mu toll nii ñaari date la ñu jàpp. Mhm. waa Benno ñi ngi jàpp seen onze waa waa Yewwi ne le treize. te confusion boobu. Uh-huh. sooy bu dafa nekk loo xam ne jaaduwul pour man parce que bañ na ko ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo xam wàllu droit xam wàllu yoon. Uh-huh. nee nañ ku ci nekk ba démb fi mbir yi doon toll kenn ku ci nekk violé woo loi uh-huh. léegi nag ay date bu fekkee ne yow da ngaa bëgg a taxaw mu leer na ne ni yow. suba ngay dee nga ne tey tey par force dina ñëw def déclaration de politique général man jàpp naa ne sans ça amatu fa parce que yow mu bu la leeree ne tey si guddi yow mii danga war a euh, assemblée bi dañ ko war a dissoudre nga ne si bëccëg gi kaay def ñoom daal pour man ñoom euh, waa ji la ñu soxla mu ñëw ci biir assemblée bi ñu dagg santeeg moom comme nuñ ko daan faral di defee ma ne nag comme moom jamono yam fay nekk waa très rapidement donc euh, beneen <coughs> sujet bi mooy lan siin euh, daral nañ président Diomaye signé nañ fa lu toll ci 10 accord loolu nag wax dëgg yàlla hmm. dina tax ñi nga xam ne nii dañ doon wax président bi ba mu toogee ba tey hmm. day wër rek di dox di dem rek kenn xamul fu mu jëm ak lan la fay wuti lan la fay indi hmm. suñ déggee accord yooyu dinañ mën a noppi waa xam ne président bi lépp lu muy dox lu nekk rek fara farata la. d'accord waaw gërëm it di di rafetlu tamit taxawaay bi nga xam ne nii première dame taxawoon na ko fa. Mm. ci discours bi mu jël macha allah ak consommé local bi nga xamante ne nii ci yëre yeeg ci solin geeg saag yeeg. na xool yal na leen yàlla suñu borom bi la fal. d'accord ñoom ñaar ñi. Euh, keroog euh, sorti premier ministre bi di juróon na coow lu rëy ba ay rajo def ci édition spéciale mhm. ay nit génn ci xataraay ci def ci ay poste waaye ca suba ga ba ñu xëyee def mel ni ñu baree bari ci ñoom rus nañu ñoo jàngatee génnam geeg attaque yu bari ci daloon te fekk xamuñu woon fa mu jëm waaw xam nga génn gi dafa am lu mu montré rek dafa am lu mu wane mhm. Euh, que ni ndekete ñiy wax ci politique ñëpp ak di expliquer di wax ci wàllu loi yeeg texte yeeg yooyu yëpp dëgër fit rek ñu ci bari waaye <laughs> demuñu sax yëri ji yëf yi dafa am nag ñoo xam ne nag dañ cee summeeku moom waaw dañ ci nit ñi dañ leen caa jaaree xam leen euh, ku ca mel ni màjji màjji moom màjji xam nga dafa teel a bind moo tax bu borom xam-xam waxee waaw balaa nga koy tontu dangay ngay gëstu jël tuuti dëgg la wala nga dégg ko tuuti nga dem gëstu il faut du temps. Mhm. parce que nit ki bu jëlee temps ba ñëw wax ak yow. Mhm. boo koy tontu jëlal temps. Mhm. bu ko tànn ci saasi. mais boo ko tontoo ci saasi rek mën nga passé à côté looloo dal maaji maaji. dëgg la parce que maaji maaji euh, bi nga xamante ni. Ousmane ko pare na rek la gaaw. dëgg la moom pour moom moom amut beneen issue. bu mën a ne. dëgg la ndekete xamuñu woon article lan. quatre vingt quatre. quatre waaw quatre waaw. Madji xamu ko woon de. waaw Madji xamu ko. waaw waaw léegi Assane moom maîtriser na article boobu. Assane Mesere donc ñun ñëpp dañoo jàng ci euh, bés boobu. waaw mais Alaaji naka la def ak journaliste yoo xam seen dund yëpp dañ koo gëstu. waaw nee ay investigation lañ. ñoom def ci ay édition spéciale kii wu ñu dara ndeysaan te mënuñoo comprendre boo gisee après boo gisee yenn façon journaliste yi sax façon wax gi ñu waxee ak ni ñuy kiiwee maanaam ñoom it dañoo futti ko ci penc bi <laughs> maanaam du question kii kese mais maanaam Euh, non seulement da futti na député yi. <laughs> yu bari journaliste yi journaliste yi ak. lenn ci opposition bi ñenn ci opposition bi teeyut. mais waaja daa mel bi yoon yeewu na de. war nañ a ah. bindul de kële. kan boobu. ah non kooku moom te xamul fu muy teg. mais bi yoon moom na tekk bi yoon bi waaja waxee teelul génn. jarul di tudd sax parce que. fii <laughs> taaxuraan la xam nga. <laughs> loolu. Uh-huh. loolu loolu mooy li nga xamante ni bii euh, mooy li ne. donc euh, politiciens yi bu dee dañoo jël politique ñoom dañoo jëloon politique def ko métier. pourtant wax na ko boo jëlee ah. wax na ko ci biir nee na am na ñoo xam ne dañoo foog ne politique mooy métier. boo ko defee métier nag. danga koy jox gëdd. métier danga koy jàng ba mu mokk. waaw métier ndaw day faral di wax ne métier bu ca bën na baax. bu ca bën na baax ah naa la. yaa ngi dégg dëgg la kon booy jàng métier. da war a fexe mu bënn. yow sa menuisier ba bënnoon na. waaw sama menuisier bi damaa bënn bënn mu të. moo tax ma bàyyi fa ndaw ak menuisier bi. ñëwal moom gone gi demal menuisier bii bu bënnee moo ko menuisier bi du bënn. macha allah maanaam kon feeñ ñi ci yëf yi <laughs> maanaam Ousmane Sonko dafa corriger gars yi wan ni leen waaw. def ngeen fi ci réew mi ay ay ay. non dañoo yàgg ci politique booy yi. te nekk boo waxee ñaan la école di parti lañ démarré jëf lii jàng lii comprendre nga kii sosi kii ñun dañoo politique ba naaw. gis nga yooyu mooy yi nga xamante ne bii mooy seen i jafe-jafe. comprendre nga. ok loolu nag. macha allah itam dig na Sénégalais yi. Mhm. ni leen euh, càccum alal gi. maanaam ah. dossier moom pare na waaw. te bu paree dinañ xam ni monté wuñ ci benn te jël nañ ci seen temps. non monté moom du fi am. waaw te am nañu dawit alaaji ñu bàyyiwaal xel nee na. waaw ñi dawit ñooñu moom ma wax la leen képp koo xam ne daw nga. Hmm. sàcc nga. sàcc nga waaw parce que reconnaître nga ni man sàcc laa ba daw. ku daw laa wax de ku daw waxuma am na ñoo xam ne dañoo jàngi alaaji ñooñu ñi dañoo dem CPI itam pour yokk seen xam-xam gis nga bàyyil may wax nga may ñàddal ay nit naan ma dañoo jàngi xam nga ah. li ngay wax ni alaaji li mu nii moo ne ci penc ah, loolu la daf daf may tëralal ay nit naan El Hadj nee nañ. ah mais information la la jox la. c'est que li ci garaaw seetal ni mu ko waxee. El na ñoom dañu dem jàngi. léegi nag moom mooy ku baax ki léegi man maa war a ñëw nappaaje. ah dañoo jàng alhamdulilah macha allah ñu jàng nañ jàng yàlla nañu am diplôme. El Hadj lu la ko gisee. daf man dama xam ne daf maa bëgg a sànq di. dégg ko li mu alaaji nee nañ ñoom dañu dem jàngi. ako <laughs> ah, dañoo jàngi alhamdulilah. nañ jàng te mokkal ak ñëw ak nañ mokkal ak jàmm. <laughs> ñibbiseeg jàmm. waaw ah, ñibbiseeg jàmm. d' accord ah, waaye daal man ñi sàcc laa wax man. d' accord ku sa képp koo xam ne daw nga. sàcc nga. d' accord waa dëgg waaw parce que mbir bu amee son bi. waaw euh, démb am na benn exemple waroon joxe nga ne xaw ma gan nga ñëwoon. Mhm. ñu ne am na lu réer ci kër gi mu ne du ñibbi. waaw fekk takkoon na ba war a dem. waaw mu daa di toog daan ne balaa ma fay génn. balaa ma fiy jóg li liñ ne dafa réer dafa feeñ ba pare. dëgg la xam nga kooku. Mhm. loolu mu def. Mhm. mooy leçon bi nga xamante ni bi ñi doon gouverner. moom lañ war a def parce que dañ ne am na lu réer ci penc mi. waaw alal ji alalu réew mi am na ñu luubal. waaw ku jub da ngay toog xaar. dëgg la ba ñu saytu ba pare. Ah. ngay soo ko mën a dox. dem fenn dëgg de mooy tax mooy nga waxoon jagan googu daal. Ah. leçon boobu moom jar nay jàngale di joxe gis nga moo tax pareen saay mhm. nga gis ay mbir yu xew ci kër yi mhm. ay nit joxe ci exemple yoo xamante ni bii dañ ko war a jàngale pour homme d'état yi di ko doxee mais balaa may dañ ne homme d'état. ok dëgg <laughs> hmm. na ni benn minute yi des rek président Diomaye demoon na Chine signé na fa six euh, dix accords. àndoon naag ay kilifa yoo xam ne ñenn ñi euh, ay mbàkk mbàkk lañ. asan hmm. koy lim démb na. Hmm. Euh, ñu bari ci gars loolu nekk lu am solo depuis puis tamit accords yi tamit dafa nekk accords yoo xamante ni bi wuute naag yu fi daan maanaam maanaam même chinois bi bu fekkente ni bi ñëw na fii. Mhm. dafay liggéeyandoo privé sénégalais yi. Mhm. xam daawutoon demee noonu loolu nga xamante ni bii nag moom lay teg foofu vraiment mbir la yoo xamante ni mbir yu am solo la loolu dina tax euh, sunu kiiwu Sénégal yi gën a taxaw gën a dëgër waaw loolu moom ñu ngi leen ci félicité di leen ñaanal fépp fu ñu dem daal hmm. nañ ko doxalee noonu bu ko defee nga xamante ni bi réew mi tegu ci yoon woo xamante ni bi hmm. yoonu émergence la dëggantaan xanaa war naa xam lu yàlla wax ci ku ci alal sàcc day baaxul. sàcc baaxul da nga ko cee laaj. ah. Oustaz yàlla lu mu wax ci ko sàcc. lim lay wax fii ak la muy tontu guddi. waaw Oustaz alaaji dégg alaaji déggal li mu wax alaaji waa lim lay wax bëccëg ak lim lay wax guddi du benn. waa léegi déggal li mu wax rek ko sàcc lu ci yàlla wax. nañ dagg loxoom. nañ dagg loxoom waaw. Ah, ah. waaw ah, alaaji mu ngi nii wax na ko loxo bi waaw loolu mu wax de loolu la wax léegi saa bu guddee mën naa dem ne tànk duñ jàng ñun duñ jàng <laughs> alaaji bal jàmbur <laughs> mu jigéen ku ko al yére bi mu sol dafa rafet vaccin